jamonoy xëccoo ak wut fi mu toll nii ndax député yaa ngi ñëw ñu war koo xëccoo bu jàllee itam euh, xëccoo réew mi jot tànn njiit fi mu toll nag ñii xëccoo ñëpp dañuy jóg wut si sëñ si sëñ si yàlla daleen nag boole mbooloo ma wax ne moomuñu mbooloo ma mm-hmm. dañ leen a war a gide ci saatal mustaqima war leen a xel ci ak taalibe kon sëriñ si waruñoo jéem a jaay mbooloo mi ndax lu ñu leen jox mbooloo mi topp seen gannaaw tax jox ko te mbooloo mi juróom ak ñaar yi ñam ñi ngi leen ci jox ngir sëñ Tuubaa kon lañ leen jox buñ ko lekk nañ ko delloo ca mbooloo ma ndax ay dafa am yoo xam ni ñu ngi ciy sant nguur di ci sant ku ne te muy ay hôpital ak yoon ak sécurité loolu nguur la war fu mbooloo ne fu ne ñoo ko fa def fu mbooloo daje itam ñoo ko fa def kon am na yooyu jërut sant kenn ndax suñu juróom ak suñu ñaar ak suñu impôt rek moo ko def te ñoom ñooñu nag di jóg fi mu toll dañuy jóg di wut di wut sëñ si waaye nag sëñ si tam nañ xam seen bopp bu baax a baax ndax ku ñëw te jóg yow ci sam néeg sëñ buy bu leen di bu dem ci ñoom da ngaa waroon ànd ak sa mbooloo dem fa lañ lay wax ñëpp dégg ko nga wutal ko nga wutal ko seere ndax mën ngaa dugg ak ñoom fii ñu jox la fukki dërëm ñu jox nañ ko ab million te booba sëg wet a tax doo ko mën a weddi booba tuumaan nañ la bu ko defee mboole mu wër la di biiw jàppale workat te fekk wuroo kenn moo tax looy def ak ñoom na ni fang ci biti mooy sel sab der sëñ sel nag nee na ñoom dañoo ñàkk secret ndax lépp lu ñu la dikk bala ñu ko def dañ ko wax téeméer te bu noppee waxaat ko téeméer dañ laal na yem suñu digg ak yow bu defee sa rakka nga fee sa dooma nga fee sa talifee nga na bukk booy gën téléphone yi diw ñëw fi ba ñu jox ko nangam ba nga gën téléphone yi keneen ne ko di ko nangam bu ko bu fekkee Ndakaaru nga jóge ba si dëkk bi fekk ñëpp yow ku ñëw naan la ana sa wàll dañ koy yokk de <laughs> boo defee fekk nga sa ñooñ waxuñu ma ma dara dañ la jàpp fenkat jàppale la Hmm? jàppaleb naa feq te fekk doonoo ko moo tax xamal boo gisee suñu bàyyi yi am na jaax bu wér a wér dañoo xam seen bopp xam ne leen yàlla tollal xam ñam leen boole tan nañu jaxasoo ñoom lii ko def am jàmm waaye ko deful dëkk ci guta te it confort bii ñu lay jox ak luxe bi du dara alhaakumu takaasur hattaa surtumul maqaabir moom loolu moom ba keroog ngay dugg bàmmeel moom loolu ndax àdduna toggam doj la kenn du ñoral ña sóor démb ak ña sóor barki démb ak ña sóor tey ak ña ñoo yem kenn du ñoral toggam doj kenn du ñoral mooy daw di àdduna bi bi bi ñu dàq nguur itam bu la ko yàlla joxee mooy joxe nguur moom leer na nañ kenn joxewut nguur ku yàlla qul allahumma maalikul mulk tu'til mulka man tasa wa tansihul mulka mimman tasa su la ko joxee bu koy nangu ni bu la ko jox niñ lay boole ñu ànd ak yow foo jëm ñu topp la ni nim di ren bu la ko xaj itam nit ñooy la topp lay lay ñoddi lañ daan wax yaa fi gën yaa liggéey ñu wax lu gën a ñaaw soo jeexalee nag dem ak jàmm am jàmm kon tey su boobu day tey su mënta saabu day ñëw soo xëccoo nag war tudd lu mënta saabu toroxtaa nga ci topp yàlla ci yàlla musal wasalaamaaleykum wa rahmatullah